di leen siyaar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bi ñu jiitalee ci ñuy jiital ci nuyoo ak siyaar bi alxalifatul am Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te di beral nuyu ak siyaar Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaïbou mi nga xamante moo sos eh, télévision bi di As-Samadiyya eh, di ci liggéeyal sëriñ bi di tasaa ci ak di tasaare njàngaleem sëriñ Touba ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mu dolli ko sàmm aar ko eh, mottali mbooleem ay yéeneen ci liggéeyal sëriñ bi bu loolu jàllee comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bi ñu di xulafaaul xadim ñu ciy waxtaanee xalifay sëriñ Touba tey jii nag incha allahu taala ñu. fas yéene ko ànd ak gan gu tedd di Serigne Garas Bamba xam naa bala ñoo commencé dinañ ko bàyyi mu nuyoo waaye tey ñu fas yéene waxtaanee euh, jëmm ji tedd ji di Cheikh Mouhamadul Moustapha nga xamante ni moom moo fi njëkk mooy ki ma alxalifatul awwal Cheikh maanaam euh, moom mi nga xamante ni moo fi njëkk a wuutu sëriñ bi ginnaaw bi mu fi bàyyi ko moom lañ fas yéene waxtaane ak dundam commencé ko ci ak gane àddunaam akum njàngam. ak xilaafaam ak mboolem liggéey yi nga xamante ni eh, amal na ko ba ci jamono ji wujjee sunu borom subhaanahu wa taala kon dañuy bàyyi Sëriñ Galas mu nuyoo ñu door a tàbbi ci waxtaan incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Abdoulaye mbokk taaliba yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ñëpp ak fu mën a nekk ci àdduna bi di soof sama nuyoo rek ci nuyoo bi nga nuyoo léegi ci kilifa yooyu di yàlla suñu borom lépp luñ fi def rek wala lépp luñ fi wax rek nekk ngërëm tam mën a jëriñ ñi seetaan yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ok jërëjëf Serigne Gallas kon mu mel ni tey ñu ngi war a waxtaanee jëmm ju tedd jooju Cheikh Mouhamadul Moustapha waxtaan wi nag ñu war ko tënk ci ñetti point wala ñetti tomb tomb bu jiitu bi ci jiitu mooy dinañ waxtaane euh, Serigne Modou Moustapha njëkk muy gën a àdduna waaw ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waajale kenn ku ne xam ne sëriñ bi waajal na ko njëkk mu njëkk mi ñëw loolu moom mooy tomb bu njëkk bi ñaareelu tomb mooy dañuy waxtaane ak gën ak àddunaam ak gën ak àddunaam ya ca xew ca xew ca bis boobu ak ya ca sëriñ bi wax ak yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw ñetteelu tomb bi mooy dinañ waxtaane tamit ay waajuram rawatina nag waajuram wu wu jigéen di mm-hmm. Euh, soxna Aminata soxna Aminata Lo kon dañuy ñëw rek ci tomb bu njëkk bi Sëñ Galas euh, nga te mooy Serigne Modou Moustapha njëkk muy gën àdduna naka la ko sëriñ bi waajale jërëjëf Cheikh ci euh, am solo yooyu tekki ñuy waxtaanee nekk ku mat a ku mat waxtaane hmm. ndax daa nekk ab royukaay te gis nañ ni suñu borom. suuf si dafay wàcce doomu aadama ngir mu dundal ko waaye ngir mu am nu ko rëdde muy sunnatullaahi fil ard la ko ca yonente yi wàcc ay yonente te ñëpp la leen tax a mooy defar ba ci awliyaaw yeeg maanaam bu yeeg tur wu ne rek des koy dégg ci biir ci biir diina ji hmm. waaye yow yëpp daal li muy tegtale mooy xër gu suñ borom xër ci maanaam nit ñi defaru waaye nit ñi am ay ay roy ay royukaay hmm. tey ni nga ko baaxoo waxee mënoon naa wàcc ay téere yi jékki-jékki wàcc ay téere ci nit ci ñi waaye dafa wàcce ay nit yónni leen jël ay téere jox leen ko wax leen na ngeen ko jàngal na ko jàngal nit ñi hmm. te ko ka ci jiitu te mooy royukaay bu mag bi te mooy ki mujj ci yonante yi sal ki mujj ki mujj ci yonante yi te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hmm. xeetam di xeet bi gën ci xeet yi am na nit bu baax koo xam da koy tagg naan ko yow sa xeet bi wàllu yi dañuy tollook maanaam yonante banu Israël hmm. kon moom ay ay xeetam wàllu yi ci nekk te Cheikh Modou Moustapha mii bokk ci hmm. ñoom ñu kawe ay ay daraja lañ ñu kawe ay maqaama lañ moo tax suñu borom tànn jamono ju ne ci nit ñi ñoo xam ni dañuy nekk ci kaw suuf ngir ñu leen di roy hmm. seeni melokaan seeni wax seeni jëf moo tax di leen waxtaan nag jamono ju ne rawatina bu jamono tollee fenn fi ngir ñu mën a fàttali seen dund mën koo royaat mën a jàngaat ci ñoom loolu day daan nekk lu am solo. Mm-hmm. waaye rawatina nag mu nekk koo xam ne daa bawoo ci sëriñ sëriñ Tuubaa. Seexul mm-hmm. Xadim ndax sëriñ bi comme ni ko ñëpp xamee ba mu jugee rek daa wuti boroomam. Mm-hmm. sëriñ Basiru da koy tëng ci bar bu am solo mooy xuli xarabaani yan ba mu jugee rek moom daa wuti boroomam hmm. léppam di doxam yéppam di ngërëm hmm. yëngatum yéppam di ngërëm waxam yépp di di ngërëm mu dox rek wuti yàlla moo tax bi mu gënee àdduna yi loolu la njëkk a la njëkk a eh, loolu la daal di wuti ba ni mu gënee àdduna ci Mbàkke Bawol ba jaar ci ay jaar-jaar yu bari ba Mbàkke Kajoor nga xam ne fa la woote yoonu murit jóge Mbàkke Kajoor ñoo Mbàkke Bawol jóge Mbàkke Bawal sañ ci Daaru Salaam mm. nga xam ne ci état bu Daaru Salaam bi ci la Cheikh Modou Moustapha gane àdduna mm. sëriñ bi nag bi mu ànd bi mu wootee yoonam bi nga xam ne mooy yoonu murit nga xam ne dafa dikkoon ngir yeesalaat te yeesal gi ñu ko doon tënk weesuwu lu defar nit ñi te loolu mooy sunnatullaahi fi ardi mm. saa bu jamono tollee fenn fi dina yabal ñenn ñi ngir ñu defaraat nit ñi fàttali leen bu caagan bu caagan dañuy indi lu bees loo xam nit ñi xamuñu ko woon wala jëriñ ñi xamuñu ko woon waaye day day jàngalewaat li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal nekkoon jàngal ko saxaaba yi daan ko dund ak ñoom saxaaba yi daan ko dund hmm. loolu la la dikkaat ngir fàttali ko nit ñi hmm. tegaat nit ñi ci yoon wi nga xam ne moo yoon wi nga xam ne moo leen may ngërëmal yàlla hmm. jamono boobu nag gis ngeen ne sëriñ bi dox na dox bu bëri waaye nag dox na dox bu yaatu te loolu bu ñu ko waxee li ñu ci jublu rek mooy am na ñu bëree bëri ñoo xam ne tarbiyee na leen ndax daaru salaam gi nga xam ne Cheikh Amadou Moussa fi la gane àdduna mm-hmm. bi muy génn daaru salaam di dem Touba. Mm-hmm. di jox dëkk bi maam si Anta mm-hmm. boole na ko maanaam téeméeri nit ñoo xam ne boo ci degee boo boo ci maam si Anta lay mat téeméeri nit jox ko maam si Anta kon kooku xam nga ni bariwoon na mbooloo tey it bëri woon na it nit ñoo xam ne it ñoo toppoon ci moom ngir mu leen defar ak di tadbiwu ci moom te it sëñ Mouhamed Lam Diop Dagana nettal na ko nee na Mbàkke Bawal bi mu fay jógee di dem Daaru Salaam boobu fekk na mu tàmbalee yeewi magi taalibe ñu ci bëree bëri mm-hmm. ku mel maam Cheikh Anta ku mel ni Cheikh Ibrahima ak ñu bëree bëri ci ñooñ ñi nga xam ne ñoo àndoon moom te ñoom ñu moom Daaru Salaam mm-hmm. mi ngi leen mi ngi pare ci ñoom ba leen commencé maanaam yeewi te pare ci ñoom gi mooy dañoo dikkoon ci moom dañ ko dañoo ñoom dañ doon wër yàlla yàlla nekk seen seen itte biñ gisee ni sëñ Tuubaa mii buñ ko toppee liñ bëgg ci diggante ak seeni borom mën nañ ko am ñu wëlbati ko jox ko seen lépp hmm. moom it mu sellal seeni xol sellal seeni ruu hmm. bañ ñu a mën a nekk seen borom hmm. loolu rek daanaka mooy ak mooy ak mooy ak tarbiya maanaam ñu ko ñu ko doon tënk bi mu leen defaree nag ñoom bañ mën di defare defa defare kon mën nga mënees naa wax ni sëriñ bi bi muy nekk Daaru Salaam bi agsi Daaru Salaam fekk na mu defar société boo xam ni defar na te bu ñu neen société ay nit koy composé. Ah. defar ay nit ñoo xam ne mën nañoo defar ñeneen. Hmm. ba moo tax mu jël maam si Anta boole ko lu ma téeméeri nit maanaam jox ko ngir mu defal leen mu fekkoon na ma defar ko ba noppi. te gis ngeen ne maam si Anta ba mu koy jox dëkk booba daanaka li nga am lu tolloog ay dix neuf ans ñooy la ñooy lay am. kooku xam nga ne boo doon xool at ci saa yi. Hmm. maanaam bëriwul. foofu it dañ ciy porox ndolwaale. Hmm. a waxaale sëñ bi kon teel naa. responsabiliser maanaam ndaw ñi. Hmm. maanaam teel na leen a bàyyi xel ndax xam na ni liggéey bi mu bëgg ak li mu bëgg a taxawal maanaam bu ñu ko doon wax jamono ji maanaam projet bi mu bëgg taxawal faw mu jëm mu teel ko jëmbat ci ndaw ñi. Hmm. te ndaw ñi nag boo koy teel a jëmbat maanaam lees war a njëkk a njëkk a lijjanti euh, mooy li ñuy wax naan nit ki boo bëggee li ngay saw euh, saw say meññit maanaam rafet. dangay ngay ji jiwin mu rafet. Hmm. sëriñ bi nag loolu la teeloon a xam moo tax bu ñu wax lu mel nii ñu koy tàmbalee ci nit ki boo bëggee am lu baax da koy teel a jëmbat. Hmm. mooy wut soxna su baax. Hmm. koo xam ne moom nga àndal koo xam ne da lay dimbali ci ak ragal yàlla. te waxoon naa ko léegi ne sëñ bi ba mu jógee rek daa wuti yàlla. moo tax moom bi muy ñaan yàlla suñu borom defal koy ay àndaale. te loolu mu ngi ko wax ci xës rek mën la bu faw séeni te mën la bu faw séeni mi ngi ko bind ci état tubaab bi mm. kon loolu li muy tegte mooy ba léegi moom mi ngi jàngale boppam waaye mi ngi bind ni ni mu bëggee ni mu àndal maanaam dunde noonu mm. ndax ci biir xasida googu ci lay wax ni wasaw jotan saalihatan tuhiinu ala tuqa arbili yaa mahin mm. maanaam yàlla suñu borom defal ay soxla yoo xam ne dañ leen dimbali waaye te la leen dimbali ñu leen dimbali ñoo leen alal waaye ci ragal yàlla maanaam mooy bëgg yàlla gi wut yàlla gi ñu def ñooñu dañ leen ci dimbali kon sëriñ bi bokk na ci lu mu wuteeg ñu bari te ñu ba cee delluwaat ci jamono jii àndaale yoo xam ni maanaam dañ bëggoon ñu jàppale ko ci digganteem ak yàlla mooy yombalal ko dem gu jëmoon dem gu jëmoon yàlla xam nga ne kon mu ngi foofu mi ngi fi wane ni maanaam jëmbat booy baax da nga koy teel a koy teel a jëmbat ñu ngi si a ci yeneen xasida gisoon muy wax mu ñaan muy ñaan yàlla defal ko ñoo xam ne dañuy am ak njaboot bu amee ak njaboot yi njaboot dañuy nekk ay nit yu baax suxli bi jaay yi yi talo doon la wala doon xaar muñ ci yem te tali bi xaari ñoo xam ne ci a am ak njaboot waaye suñu amee am njaboot njaboot bu barkeel ñoo xam ne ay ay waaye gis ci xasida googu bu waltajal anha yaa ilaahi saaliha saalihi man yaxmalu lahu saaliha yàlla suñu borom nag nekk maanaam àndaale yooyu maanaam soxla yooyu ñu nekk ay nit yu baax ñu nekk ay nit yu baax kon suñu tubaab lépp lu mu tànn maanaam mënut a ñàkk ñu nekk ñu bu baax waaye lay lay lay lay lay lay génn ci ñoom ak njaboot nekk ñoo xam ne duñu maanaam lu baax la ñu mën a la ñu mën a jëf. Mm-hmm. kon sëriñ bi teel loolu ndax ñaan na ko yàlla. ndax nit ki ginnaaw boo sabablu ba noppi eh, da ñaan yàlla ndax ñaan mooy it ma fàttali it ne moom lépp lu mu ñaan lu mu ñaan yàlla yàlla nangu na ko ndax boo dekkee ba demee ci accident ba léegi da gis mu naan. Eh, eh, xaala lisaanun xaali lii alif bila taraddudin allahu minka xabila hmm. waaw day mel ni lisaanu xaal man sa wax kàddu suñu borom rek hmm. maanaam mi ngi koy wax naan ko bindal te bul dengi dengi te maa ngi lay xamal loo bind rek man yàlla nangu naa ko hmm. da wax demaat ci beneen bay di mu naan lépp lu ma bind yàlla defee na ko kat comme na ma ko bindee wa annahu jaxala maa katabtu kama katabtuhu wa ma talabtu am na beneen version boo xam danaan wa annahu jaxala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu mhm. kon moom lu mu def ma nga ma nga saxoon lépp liggéey bépp te mooy bind mi te li ci yéene woon mooy liggéey woon tamit mhm. yàlla nangu na ko waaye ginnaaw bi ko yàlla ba ba noppi la muy wax ci biir yàlla suñu borom defal na ko ko maanaam mhm. nangu na ko liggéey bi nga xam ne bind mépp liggéey woon tamit ci loolu nangu na ko liggéey boobu waaye nangu na ko it la muy ñaan ya muy wax ak mbébét yi muy bëgg ci ci ci biir liggéey boobu yàlla suñu boroom defal na ko ko te jam jamono boobu it yàlla doon seet loo xam ni lu réyoon la ci moom mooy jamono bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha période bi muy bi mu gënee àdduna te mooy te lu doon wëri Touba suufu Touba waaw hmm. te suufu Touba mag ñi dañuy wax ni Touba ñu bëree ko bëggoon wàllu yu baree bëri bëggoon nañ Touba ba ñaan ko suñu boroom hmm. waaye nee nañ jëmmi Touba ci boppam. moom moo tànn ànd ak Serigne Touba. Mm-hmm. kon lool ci nga xamee ni maanaam ci liñ ko doon maanaam liñ ko mën a waxee mooy ta muy Touba. ab mm-hmm. taalibe la ni taali ni taalibe yi. Mm-hmm. sëñ Touba nekk mu nekkoon suuf soo xam ni leer goo xam ni it maanaam sëñ Touba yàgg na ko gis gisu xol di ko wër jamono bi mu nekk Darou nga xam daan def ay xalwa yu bëree bëri daan jekki jékki dugg ci àll bi. waaye loolu lépp kon mooy wër Tuubaa ak leer googu fan la nekk ngir mu mën koo ngir mu mën koo feeñ hmm. gis nga it ba mu demee ba gis ko it ci la waxin ni sàkkatuhoo ci xasida ak faw seen yi nga xam ne Tuubaa gi la ko defee hmm. sàkkatuhoo li andona xat saaxan yi hmm. li waxta ne bi nafa nafa maa xàqan yi maa sant yàlla mi nga xam ne ci indi indil na ma li ma bëgg dàqal ma li nga xam ne moom moo doon gàllankoor te gàllankoor googu nekkoon ci xolam mooy bëgg bëgg gum yàgg bëgg suuf suuf su tedd su mel ni tuubaa nga xam ne bëggoon na ko ci xol bi lool. Hmm. waaye mënu koo woon a gis. mu dem ba gis ko nag gis googu mu ko gis nag ci la ne yàlla li ma doon bëgg sama xol te mënu guma ko jot yàlla suñu borom dàqal na ma ko. te daan na wax ni Touba bi ma fiy dugg ñaar rek laa fekk te ñaar rek ñoom fi fekk. Hmm. bi ma fiy dugg fekk naa fi win winday pël winday pël ak saawoy nag. Hmm. bi ma fi duggee ñaara ma fekk mooy kuy wut yàlla ak kuy wut àdduna kuy wut yàlla danaa ko womat ba ne ko yàllaa ngi nekk maanaam tooxin kii àdduna lépp lu mu bëgg ci àdduna danaa ko jox waaye kii wut nag ba yomal xaamee ba yàlla jox ma may séddu samay nit bu ma xoolu bat ndax la ma seqoon moom jox naa ko ko ba noppi kon euh, Cheikh mu des naa tënk foofu ci période bi nga xam ne maanaam Cheikh Amadou Moustapha na ci àdduna étape bi sëñ bi tolloo taalibe yi ak ñi tolloon ak boromam ok jërëjëf Sëriñ Galas ci leeral bi am solo yooyu euh, ku dégg euh, li nga li nga wax noonu ci xam ne kon sëriñ Mourou Moussa sëriñ bi daf ko waajal euh, ci tënk rek kon sëriñ Mourou Moussa mi gën àdduna ci baax da daawa mhm. sëñ bi mën nañoo wax ni am na ci étape boo xam ne xëy na wóoteegul woon mooy étape bi nekkoon ci daan jàng ak jàngale mm-hmm. ak état bi nga xamante ne mi ngi woon ci ak jaamu yàlla am ak di wër nit ñu baax ñi ak bi mu demee ba état bi nga xamante ci la woote mooy dem ba am ndigalu woote suñu borom jox ko ndigalu mu woote mm-hmm. ci ginnaaw loolu bi mu wootee ba nit ñu bari wuy si ko mu tarbiye leen yar leen ba wàcce sax ñu bare bëri comme ni nga ko waxee defar ab société mm-hmm. ci jamono jooju kon ci la sëriñ Moustapha gane àdduna mm-hmm. loolu di la am solo waaye nga wax ni tamit sëriñ Moustapha jamono bi muy jam bi muy gane àdduna dafa tombeek sëriñ bi doon wër tuubaa mm-hmm. nga xamante ni mooy dëkk bi ko gënal maanaam dëkk bi mu gënoon a fonk bi mu gënoon bëgg comme ni mu ko waxalee boppam ñaari dëkk yi nga xamante ne moom moo ko tànnal boppam bëgg leen mooy tuubaa ak Daaru daaru salaam kon sëriñ Moussa bi muy jamono ji muy génn àdduna boobu daa fekkoon sëriñ bi di wër euh, pàkk bu la boobu di di Touba comme ni mu ko waxee woon wax ne Touba njaareem makaanul xitma la comme ni mu ko daan waxee bi mm-hmm. njaareem makaanul xitma la mm-hmm. waaye Touba nag makaanu raaxa la mm-hmm. makaanu raaxa euh, loolu tamit dañ nga ciy gisee kon tawféex ji ci amaat nga xamante ne sëriñ Mourou Moussa sëñ bi nga xamante ne lim li mu bëggoon mooy ginnaaw bi fi jógee ñu indi ko Touba. Mhm. Touba googu waaye joxoon ndigal tamit sëñ Maodo Moustapha ni ko ginnaaw bu fi jógee na fexe ba indi ko ci dëkk bi. Mhm. waaye suñu borom sëñ Maodo sax yàlla defal ko tawféex ba loolee tamit mu am ko. Mhm. kon loolu day mel ni loolu ak ak tawféex ilaahi dëgg dafa dafa feeñ foofu. maanaam jamono bi sëñ bi di wër dëkk bi. période boobu ci la sëriñ Maodo Moustapha. gëne àdduna mhm. waaye sañ bi lam gënoon a bëgg doon ko ñaan mooy bu fi jógee ñu indi ko Touba mhm. loolu sëñ Manoum saa defal ko ko mhm. kon loolu am na solo tudd nga tamit Daaru Salaam wax nga ne ci Daaru Salaam mooy wër yooyu mu doon def agsi Daaru Salaam xëy na sax bokkut ak bi bi mu tukkee bay bay bay ñëw bokkut ak boobu waaw Daaru Salaam euh, maanaam bi bi mu wàccee ñenn ci ñu toppoon ci am taalibe yi bi jamono yi mu leen wàccee nga wax nga toll ci maam boo ci boolee maam si Anta mu toll ci téeméer ba pare yëkkatiwaat dëkk bi jox ko ko kon ci boobu jamono jooju ci la Serigne Mourou Moussa gën a àdduna kon jërëjëf Serigne Gallas ci leeral yu am solo yi <coughs> kon dañuy ñëw rek ci ñaareelu tomb bi mooy ak gën ak àdduna am mm-hmm. la ca xew lépp lépp mm-hmm. am mm, mooy naa sax bis baag ak at mm-hmm. eh, ci sëriñ bi waxoon ci jamono jooja waaw loolu kon moom mooy nekk ñaareelu tomb bi insha allah jërëjëf Blaat ndax euh, wax nga ci loo xam ni man sax seetlu ko woon. Hmm. mooy gane gi gane àdduna Daaru Salaam te fekkente suñ Tuubaa gis tubaa hmm. te moom moo ko indi tubaa it maanaam loolu it. Ah. maanaam mbiram mbir la moo xam ne day wane ni tubaa moom ay mbiram daal buñ ko jàngatee dëgg-dëgg moom daraam do asar ah, lépp lu mu def rek. am na am na lu mu doxanti biir yëpp maam yàlla hmm. yàlla moom amul dara lu ci loo xam ne euh, lépp ay secret la. kon mi gane àdduna Daaru Salaam. daaru salaam xam nga mooy kërug jàmm waaye manees na ko firee mooy kër yàlla mm-hmm. ndax euh, sëñ Tuubaa li li ma la wax léegi ne li wane ni yëngatum lépp yàlla la mm-hmm. mooy këram yi da koy wane daaru salaam daaru Xuddoos mosibul ku tudd daaru Xuddoos tudd ko ah. daaru minan mm-hmm. daaru Rahmaan daaru Mannaan maam kër lépp li ko yëpp nekk yàlla. Hmm. ci jamono boobu nag mu am ci Cheikh Cheikh Mamadou Moustapha. Hmm. Cheikh Mamadou Moustapha yàlla suñu borom daa def ci moom ay tawféex yu bari ak mu am ay jag ay jagle yu bëree bari yoo xam ni daanaka kenn fekk ko ci. Hmm. ndax eh, mi ngi gën a àdduna ci atum mille trois cent six. hijriya waaw hijriya. dafa ko ci Daaru Salaam. moo tombeek moo tolloog mille. 888. Hmm. donte damay gën a préféré sax di wax maanaam date hijriye kese. Hmm. waaye moo tombé septembre 1880 1886. 80. 1888. 88 waaw 1888. Ah. Hmm. ndax euh, loolu euh, la Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nettali ci biir Irwaaw Nadim. ñu ngi ko jëlee ci Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy rek Cheikh Mamadou Moustapha. moom ak sëñ Fallou daanaka mënees naa wax ne ay Cheikh lañ. juróom benn weer lañ magantee. Hmm. kii daa nekk bu dee ci hijriya hmm. ñoom ñooy bokk même at mi hmm. maanaam mille trois cent six lañ gën a àdduna kii nekk maanaam muharram kii nekk rajab bu dee ci ati ati miladiye yi mille huit cent kii septembre mille huit cent quatre kii nekk mars mille huit cent quatre kon ñoom ñaar juróom benn weer euh, lañu euh, lañu magantee kon Cheikh Moussa boo xoolee Daaru Salaam gi mu gënee àdduna nga xam ne Sëñ Tuubaa wax na ni Daaru Salaam ak Touba comme ni nga ko waxee léegi ay suuf lañ soo xam ne yàlla suñu borom moom moo ko tànnal. Mm-hmm. tey it ba mu fay dem nekkutoon ay suufi maamam wala fu mu bëggoon mbayee rek wala dara. Mm-hmm. waaye da ko tànnoon muy suuf soo xam ne jaam yàlla dong la la la fay def. Mm-hmm. daanaka wax naa ne li tax ma bëgg ñaari suuf yooyu mooy sama yéene ju sell yi mu leen sanc. mooy dama leen a dama leen a sanc li xibaadatillahi maanaam ngir jaamu yàlla kese. kon loolu bu fa Cheikh Moussa gën a àdduna da nga xam ne maanaam bokk na ci. jagle xusuus yi maanaam ay jagle moom moom mm. Cheikh moom Cheikh Amadou Moustapha mm. gis nga it ci weer wi nga xam ne moom la gane àdduna mm. mooy buñ ci dikkee mooy weeru muharram mm-hmm. muharram la gane àdduna weeru muharram bokk ci asuru mm-hmm. kon loolu la bokk mu gane àdduna it e, ci comme ni ko Cheikh Mawlana Diop Dagana waxee mm-hmm. maanaam fukki fan ak benn la Cheikh Mawlana Diop Dagana wax am nañu ne ci ñetteelu fan yi la gane àdduna maanaam wax yi bëri na ci waaye lu ci mën a xew rek mooy wuuteeg nit ñu baax ci seen date yi at année adduna yu mel noonu. Mm-hmm. ñoom loolu mooy sunnatullaahi ci ay ay ci ay wàllu yam mm-hmm. ndax seen lu bëree bëri ay da koy dëxañ ci biir weer wala mu dëxañ ko ci biir bis wala mu mm-hmm. dëxañ ko ci biir semaine. ak ak yu ni mel. loolu loolu baaxoon nañ ko. waaye boo jàpp rek maanaam li ci am solo mooy ñaari wax yooyu boo jàpp rek di am wax ju maanaam wax ju dëgër la. fu ñu mën a mën a teg la bu dëgër ndax bee bu njëkk bi. sëñ Mamadou Lam ñoo Dagana moo ko eh, wax ci jële ko ci Cheikh Amadou wax bu ñaareel bi mooy ñetti fan yi sëñ Moussa Ka net sëñ nettal na ko hmm. sëñ Moussa Ka ne ko na xam na ni maanaam ci ñuy dëgëroo seen wax la ci ci wàllu histoire hmm. kon ñaari wax yëpp rek am na delluwaay bu wér hmm. bu dee sëñ sëñ fa sëñ Fallou bi boobu mu ngi tombé rek fukki fan ak benn fukki fan ak benn wala suñu maam lu jub daga ci weeru muharram bu dee sëñ Modou Moussa mu wax ñetti fan ci weeru muharram ñetti fan ci weeru bi muy gën a àdduna it comme ni nga ko waxee léegi. Hmm. mi ngi fekk sëñ sëñ Tuubaa nekk li wër suuf Tuubaa. Hmm. ba koy ba gis ko ba koy gis. Hmm. ba gis ko ci la ko yàlla indile maanaam tawféex jooju te mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha. àdduna Darou Salaam. ki ko yëgal Serigne Touba it. maes na nañ ci ñu bëri waaye maes na ci kenn mooy Serigne Massamba kañ moom moo dem moom moo nekkoon tubaa ak Serigne Hmm. moo ko yëgal xew-xew bi hmm. bi ko ko yëgalee it Serigne wax ci wax ju bari hmm. jël aw kayit bind ca aw turam ci yenn nettali yi ba mu ko fa bindee bañ demee bañ demee ba àgg ca bañ ko jox aw tur ñett nit teewoon nañ fi bokkoon nañ ña fa teew ñoo ña ma ca xam xëy na bari woon nañ waaye ñett ñi mën naa leen ci lim borom daaru ma nga fa woon suñ Bousso bi ma nga fa woon euh, suñ Mor Jaara ma nga fa woon Hmm. ñetti ñii ñi nag ñetti ñii nag. Hmm. képp koo xam ne ñu ngi lay jox aw tur. Hmm. ñett ñii teew fa. yow munoo def lu dul baax. maanaam munoo munoo yaakaar ci yow lu dul ak baax ndax bu dee suñ musoo bi nga xam ne moo bokk moo bokk ak soxna jaara lépp. ñoo bokk ndey ak bàyyi moom soxna jaara. suñ musoo bi jagle bëri na lool te bokk na ci liñ ci mën a tudd ci moom. mooy bi Sëñ Tuubaa nekkee daara nekkee daara Xuddoos gii gisu yonent gisu yonent bi sallallahu wa sallam ba noppi ci yoonu géej gi maanaam bañ waxante la ñuy waxante bokk ci sart yi yi ko waxoon mooy natt bi mënuñu ko teg mukk fi yëg seen yaay ji mi ngi fi mu Sëñ Buso bi ndax buñ la ko tegee am na yërmaane ci yow goo xam ne bu ñaanee yàlla suñu borom teg ko mm-hmm. te loolu kon du gën ci yow moo tax Sëñ Tuubaa bi mu jógee Tuubaa nekk Mbàkke Bari ci la ci la si mosoo bi génn àdduna mm. nga xam ne avant avant natt bi di kon xam nga ni kooku te daa bokk ci la ko yonte bi wax ko maanaam suñu mosoo bi yàlla du ko rus suñu mosoo bi lu mu bokk lu mu bokk suñu mbàkke lu mu bokk suñu mbàkke mosoo suñu mosoo bi lu mu bokk euh, so soxna jaara ñoo bokk ndey ak baay waaw mook soxna jaara mook soxna jaara mook soxna jaara mi waajur suñu ñoo bokk ndey ak baay léegi nag sëñ Bousso bi mooy waajuru sëñ Mbàkke Bousso ok mooy waajuru sëñ Mbàkke Bousso mooy ah. waajuru Soxna Awa Bousso mi ah. waajuru sëñ Fall sëñ Fall ah. Mhm. léegi kon sëñ buso bi am na cër maanaam mhm. loolu rek ma des na cee tudd ne maanaam am na cër am na am na cër loolu dama des mhm. na cee wax lu bëri sëñ Mor Soxna Jaara it gis nga it bi mu génnee àdduna seede yi ci sëñ Tuubaa defoon sëñ Tuubaa nee woon na yorente bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam ba ki turandoom yëpp yow yaa ko ci gën te neewoon na Sëñ Tuubaa neewoon na bi mu tëddee ci ci bi mu gënee bi mu génnee àdduna suuf musul denc ku ku la gën mm. te it bokk na te yem seede woon ci ci moom it mm. mooy muy génn àdduna maanaam yóbbaale wu benn bàkkaar musul am musul am bàkkaar kon kooku xam tag ku kawe la ku kawe la woon mm. te bokk na ci ñu jàngal si Amadou ñëw te it euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñu siiw la ñu daan naafi la kaamil alxuraan ñaar rakka kon kooku ne am na cër ci borom daaru muxti it mënees naa doy sëkk ci wax ni Sëñ Tuubaa moo bindal boppam ne musul taqali ko ak man ci hmm. ndawam ba ci magam waaye musul juyoo ak man ci ndawam ba ci magam xam nga mën ngaa hmm. taqali ak nit ki hmm. loo xam ne lu juyoo moom la waaye dañ ne musul ak man musul juyoo ak man ci ndawam ba ci ak magam kon ñett bu ñu tiimee nit maanaam jox ko aw tur kooku xam nga ne loolu yàlla dana ci def yàlla dana def ay ngëneel kon ñoom ñett ñi ñoo fa ñoo fa nekkoon waaye suñ Mor Soxna Jaara moom moo ko jox aw tudd nga xam ni boobu waaw nga xam ni boobu fekku sëñ bi moom fekku suñ boobu suñ Tuubaa nekkoon maanaam bu dee suñ Mor Soxna Jaara ak suñ Musóobe ñoom Mbàkke lañ nekkoon hmm. hmm. waaye hmm. ñu jóge Mbàkke ñëw Daaru Salaam ñu tudd si ko suñ Maamoor Jaara jox jox ko jox ko tur waaw ñu ko tudd yonent suñ ma suñ Mamour Diallo may fàttali ne ndax ni ñu koy xamee ni ñeneen mën nañu a xamee noonu. Hmm. suñ Mor Soxna Diallo moog suñ Tuubaa ñoo bokk ndey ak baay. waaw ah, ñoo hmm. bokk ndey ak baay. suñ Mor Soxna Diallo moom moo ko jox moom moo ko jox aw tur tudd ko yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. te it foofu it liñ ci liñ ci taxawee mooy man mën nañu mën nañu tey delluwaat ci waxi si nga blaat. ci bànn boo xam ne doon waxtaan ci suñ Tuubaa yonent bi. ci lay expliqué ne suñ Tuubaa bi rek la dëgmal kenn amu ci moom ter moo tax doomam bi njëkk mu tudd ko yoon tamit mooy chauffeur Moustapha hmm. di ko lime noonu di ko lime noonu muy dem hmm. kon loolu ci la ñuy sukk ndax ñu ñëpp xam la hmm. waaye li ko ñëpp ñëpp xam-xam-xam teewut mën nañu am fu mu sukkandiku it maanaam ba saxal loolu ne ah. Mouhamadou Moustapha ah. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko ah. la ko tudde am marjax booy dellu am marjax booy da ci am da am solo ndax ñi nga xam ne ñooy gëstoo gi mel noonu kon eh, ci noonu la gane àdduna ñu jox ko aw ñu jox ko aw tur ci weer wi gane àdduna mu weeru gëneel ak dëkk bi mu ko defee ak ñi nga xam ñoom ñoo ko ñoo ko tiim mm. euh, loolu lépp day wane mm. maanaam ngëneel lu suñu borom namm ci moom ak mm. njëmbët mu rafet mi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bëggoon na ko ci moom day mel loolu day wane ni maanaam suñ yàlla suñu borom maanaam nangul na ko euh, nangul ko loolu kon ci wàllum gane àdduna ma yu mel noonu daanaka ma resatee wax wax loolu njëkk ñu dugg ci waajuram jigéen macha allah jërëjëf Sëriñ Galas wax dëgg yàlla am na solo lool euh, buñ tënkee li sëñ Galas wax foofu ci ak gën ak àddunaam sëñ Mor Moussa ci gàttal rek mu ngi gën a àdduna 1306 hijriya ci gàddaay gi tolloog 1888 1888 mu gën a àdduna ci weeru muharram euh, muharram moom la ñuy wax baraxlu yaakaar naa. Mm-hmm. moom la ñuy woowee bara moom la ñuy woowee tamxarit. tamxarit mooy tamxarit moom la ñuy tamxarit ci wolof kon ci weeru tamxarit boobu ci la gën a àdduna ci atum 1800. 88 ci atum euh, miladi atum tubaab euh, mu wax tamit ni biñ koy jox aw tur sëñ Tuubaa teewe ko woon boobu mi ngi woon Tuubaa mm-hmm. waaye mag ñi am nañu ko teewe woon ku mel ni borom daaru maam Thierno Ibrahima Faati sëriñ bu soobe di waajuru seriñ Mbàkke bu soobe sëriñ Mbàkke bu so ak sëriñ Mamour Diarra ñoom ñoo ko teewe woon sëriñ Mamour Diarra moom moo ko jox tur tudd ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko moo loolu moo waral ñu koy wax Mouhamadul Cheikh Mouhamadul Moustapha kon Sëñ Galas dañuy ñëw ci ñetteelu tom bi mooy kan mooy waajur Cheikh Mouhamadul Moustapha. jërëjëf même tabaxarit googu sax gis nga ngëneel yu bari xew-xew yu bari bari mën naa cee fàtte yenn waaye xew na ci yoonu murit hmm. ndax tamxarit googu ñu bari ci waa kër sëñ bi nga neen ci àdduna mas na ko moom Cheikh moomu hmm. bokkee ci assurance bokk ci weer yi nga xam ne suñu tuwaay li mu ci masale ko dinaan ay yonante yu bëri yoo xam ne am luñ defoon yàlla suñu ah. borom maanaam dégg leen ci ay ah. yu bëri gis nga yit ci tamxarit la suñu tuwaay gén génne woon àdduna hmm. xam nga ni waaw hmm. suñu tuwaay génnam àdduna mbégte la woon hmm. maanaam du naqar ndax moo daan wax ci wax na ci xasida si nii ne yàlla defal sama tàqali ko sama sama ruu mu nekk maanaam mbégte mu nekk mbégte ci ñëpp ci tamxarit googu it kon ci la Cheikh Amadou Moussa yi toogee xalifa yi toogee xalifa macha allah kon tamxarit boobu mas na ci lim yu bëree bëri ci ay ngëneel ci tamxarit googu ci lañu ubbi jumaay Tuubaa mm-hmm. ci weer woowu tey bokk na ci li mbébét yi yi nga xam ni Sëñ Tuubaa na ko lool mm-hmm. kon mas na ci wax lu bëree bëri ci ci maam ci weer woowu ci weer woowu noonu soxna Aminata Lo di waajuram mm-hmm. soxna Aminata Lo euh, li ma waxoon léegi rek doyoon na ci sëkk ci ne. Hmm. maanaam suñ Tuubaa lépp lu mu tànn. Hmm. moo gën lu moom. Hmm. te lépp lum mu tànn it ndigalu yàlla la ci am. ndax moom loolu na daan doxe ndax yéenam ju sell ci jëm daan jëm daan doxe mais na cee mais na cee wax buñ jamono foofu rek mu baax. waaye soxna Aminatu daa nekk jigéen joo xam ni. jigéen bu baax la. te loolu Sëñ Tuubaa ko njëkk a ndax Sëñ Tuubaa danaa wax ni aminata almardiya la ko daan wax mm-hmm. mooy soxna suñu gërëm si mm-hmm. kon loolu waxee Sëñ Tuubaa jooju nag doyoon na doyoon na sëkk mm-hmm. ci ne bu Sëñ Tuubaa seedee ci moom seedee ci moom loolu mu bokk ci famille bu baax te mooy waa kokki yi di e, ñoom ay nit ñu baax nga xam ni sëriñ bi nekkoon kokki may fàtte tur yi sëñ Matar Ndumbe waaw sëñ Matar Ndumbe waaw kay nga xam ne boo demee ci gisaawu sako dafa toog fi jërë wax relatif moom la sëñ Tuubaa daan wax doon wax naan hmm. mooy sangu képp ku maasal jamono hmm, hmm. kon foo loolu li sëñ Tuubaa seede ci moom lool rek doy na sëkk ni ñoom ay nit ñu baax lañ kon moom foofu la bokk kon boo xoolee aw xeetam maanaam fa mu bokk da ngay gis ni bu nekkee nit ku baax wala mu nekk roykaay wala mu nekk nit koo xam ni exemple la ci ñëpp ci def lu baax ak wax lu baax ak yéene lu baax kon loolu du bett kenn. Mhm. fa mu jógee bu ñu ko fi xoolee du bett kenn. waaye rawatina sax fi mu ñëwee. Mhm. ci mooy ci mooy Seexul Xadiim ndax daa yàgg amul dogu ci liggéeyal Sëñ Tuubaa. Mhm. maanaam bi mu ñëwagut bi mu ñëwagut ci ci ci loxo sëñ bi daanaka may sax moom ko tàmbalee liggéeyal. di ko lu jëm ci wàllum maanaam seetal ay seetal ay yére wala yónnee ay àddiya da ko yàgg defal sëñ bi loolu ñëkk ñëkku nit koo xam dafa ñëw ba ci moom soo ko ko defal xam nga ñoom jigéen ñu baax ñoom nga xam ne ñoo ñoo di leen war di waxtaane nekk suñu suñu royukaay moo tax jëmbët nit ki saa bu yéenee lu rafet rek am njortu ci nit yéene ci lu rafet yàlla suñu borom dana ko dana ko ko fay. Mm-hmm. waxuma la nag nga ànd ak suñu tubaab mi nga xam ne sàkku ci moom lu baax daa yomb. Mm-hmm. may naa ci joxe misaal soxna. firxaw na xam nga moo gën moo gën a bon ci nit ñi. Mm-hmm. soxnaam soxna Asiyatu bokk na ci jigéen ñi gën ci jigéen ñi. Ah. te soxna Asiyatu bokk na ci li ko yàlla fay ci soxna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay lay doon. Mm-hmm. ba aj ba ajjanaa. incha allah borom xam-xam bi mm-hmm. waxee. kon foofu liñ ci mën a déggee mooy e, ñu bëri dañuy wax ni da gis jamono ji ñu bëri di wax ni maanaam bu la sa jëkkër sa borom kër gërëmee. am nga àjjana na naam am ñu naan na fekk yàlla gërëm ko hmm. loolu tam am na yoo waaye du caaga nit nit ki ngay sàkku ngërëmam hmm. déedéet ah, ah. Hmm. maanaam ngërëmal yàlla li nga sàkku ci nit ki maanaam loolu ab sew sew la maanaam ngërëmal yàlla li nga sàkku ci nit ki kooku bu la bëggee bu ca bëggee wala bu ca bëggut doonte nit ku bon la yow ngërëmal yàlla yàlla dina la jox ngërëm wallaay suñu suñu may da koy da koy da koy misaal ci ak murit danga la gisal waaye ngi di dox ci murit ba xëy ami murit te moom sax du murit mm-hmm. nga xam ne nit ñi ñi ngi ñëw ci yaw di sàkk ngërëmal sëñ bi mm-hmm. dem nañ ba am ko doonte yow man ngaa bay nekk koo xam ne kuy dëggal nga mm-hmm. waaye ñoom yàlla nga leen indi woon ak seen njëriñ ju rafet yàlla dana leen ko fay ndax du naasaay yàlla du sànq tifi aji rafetal kon loolu loolu ab sew sew la kon moom ku yàgg liggéeyal sëñ sëñ Tuubaa la te it ku ndeysaan ku teel a làqu la ndax wax naa léegi ne si mën Moussa 1306 la gën a àdduna. waaw ah. moom 1310 ci la ci la génn àdduna. Ah. te génnam àdduna gi it hmm. maanaam jaayante moo ko yóbbu. Hmm. ndax sëriñ bi moo leen dajale eh, bés wax leen ne àpp bi ko fi indi woon jot na mu war a dellu. Hmm. xibaar leen ko. suñu soxna Aminata Lo jël dogu engagement maanaam mën a dem moom jox bakkanam. maanaam ngir suñu dund àggale mission bi. kon da nga xam ne bu murit bu ne mhm. ko yoreel nga ko njukkal. Mhm. ndax burutoon moom la ñun lii lépp tawfeex ji lépp mën nañ mën nañ ko bañ kon daa jaay ak dundam. Mhm. maanaam jaay bakkanam. jaay léppam. ngir jënd ko maanaam suñ tubaab des fi ñëpp ñëpp jariñu. loolu liñ fi mën a jàngate bëri na. mooy nit ki bis boo jël bis boo yàlla suñu borom bu la xëree. ci nga jëndee sa bakkan ci njëriñal ñëpp yàlla suñu borom dana la xëy fay mm-hmm. ndax bu ñu waxee sëñ Cheikh Amadou Moussa ak Cheikh Mamadou Lamine Bara mi nga xam ne ñooy ñaari doom yooyu ku leen tudd da xam ne yàlla fay na ko mm-hmm. ndax ñaar ñooñu rek doyoon nañu sëkk ci maam ci eh, ci fayu yàlla kon moom engagement boobu la engagement ci kër Sëñ Tuubaa rafetal it ci digganteem ak ñëpp mm-hmm. ndax bokk na ci ñi mu fi nekkaloon mën ta tudd ñu bëri waaye ki ci gënoon ràññeeku mooy Soxna Awa Bousso nga xam ñoom ñaar ñoo fi nekkoon ak ñeneen ñu waaye seen diggante it maam noonu la meloon. Mhm. ndax it ak njaboot tamit ginnaaw bi ñu fi jógee sonn aw busa la leen si la leen si la leen suñu tubaab suñu tubaab jox maanaam mu yar leen tàggal leen def ñoom def ñoom mhm. lépp. sonn aw busa waajur suñu faal sonn aw busa waajur suñu faal kon mhm. sonn américain loo nekkoon nit ku baax ku ku suñu tubaab ku am ngërëmal suñu tubaab ku bu ku daan topp sëriñ bi ci lépp ku daan ku ko daan liggéeyal ku am ngërëmam ku jaayoon léppam jox suñu tubaab kon kooku jàpp naa ne royukaay la boo xam ni mees na waras na di ko waxtaanal di ko waxtaanal jamono ju ne bi ñàkk sax ab ay yoo xam ne hmm. dañ ko jagleel ñooñu rek nga xam ne loolu rek ñoom ñoom la dañuy hmm. waxtaane kon soxna Aminata Lo moomu euh, moom waajur sëñ mënu soir rek la ak sëñ baara waaw waajur sëñ mooy waajur sëñ mënu soir mooy waajuru sëñ euh, baara baara hmm. njëkk muy dem sëñ biit amoon na feneen fu mu nekkaat fu mu nekk fu mu nekkatoon ba am fa euh, ba am ko fa jotaam waaye kooku fàtt naa tur yi nag moom ah, jërëjëf sëñ Galas ci leeral yi am solo macha allah euh, ku déggu kàdd yi dina xam ni li ngay wax maîtriser nga ko bu baax a baax kon sëñ moom sa waajuram bu jigéen mooy soxna Aminata Lo mhm. doy na ci rek li nga wax ni euh, sëñ Tuubaa daa ko daan dàkkante la almardiya almardiya mooy ku ñu gërëm ki kon loolu rek daanaka doy na doy na ndam doy na doy na ndam doy na cër wax nga ne tamit soxna Aminata Lo mi ngi bokk ci euh, famille Kokki waa Kokki Kokki mhm. ku leen xam-xam ne ay nit yi xam-xam lañ mhm. naka jekk ay ay nit yi ay nit yi nit yi yàlla ay nit yi xam-xam ñoo xam ne ñu ñu sàmm ba buñ dee delluwaat sax ci gës ci ci ci ci gëstukat yi ak bindkat yi am na ci ñoo xam sax dañuy wax ne am na ci yenn xeetu xam-xam yoo xam ne dugal nañ ko ci réew mi yoo xam ne sëñ Maxtaar mu ndumbe moom moo ko fi dugal. Mm-hmm. Mm-hmm. lu mel ne naxaw. Mm-hmm. am na ñu wax lu mel noonu. xëy nag mën naa am lu dàq loolu walla waaye waxees na ni moom moo ko jëlee Mauritanie indi ko fii. fii Sénégal kon loolu tamit day wane ne kon soxna Aminata Lo moom dafa bokk naka jekk ci. Euh, famille bi mu bokk wala fi mu bokk ay nit xam-xam lañ. ay nit ñu ragal yàlla lañ. wax nga tamit ni euh, moom ginnaaw bi sëñ Moodu Musaa sëñ Moodu Musaa gën a àdduna yàggatu fi hmm. yaakaar naa 1310 nga wax ne ci la làqu kon la boo xoolee 1306 bi nga xam te ne ci la sëñ Moodu Musaa gën a àdduna 6 ba 10 daanaka kon loolu ñetti at ñeenti at jàpp ñetti at hmm. diggan diggal boobu lay doon kon euh, euh, ci gàttal daal euh, buñ dee wax sëñ Moodu Musaa waajurum jigéen mi ngi tudd soxna Aminata soxna Aminata Lo hmm. kon yaakaar naa lii mooy tomb bi nga xam te waroon nañ ko waxtaane mhm. tey incha allah ñu jéem joxaat rendez rek samedi bii di ñëw. Mhm. ñu war a continuer waat. waxtaane waat ah. samedi wala waaw dimanche dimanche laa bëgg a mhm. dimanche bii di ñëw incha allah bu ñu ñëwee eh, ñu continuer waat ci eh, waxtaan ak yéen ci jaar-jaari Cheikh Mouhamadou Moustapha fas yéene ko àndaat ak ak Serigne Serigne Serigne Gallas kon sëñ Gala dañ la.